diggante Kaw Gourdin ak Ronaldinho Kaw Gourdin mu jëb bu re ak caatu Daouda Fall fii daan jël bu rëy daan jël bu rëy moom Konia 2 la mu jëb ah, moom tamit mu daan Konia 2 arbitre bi la ñaari mbari ñoo ngi lay waatu Lamine comme lu nga wax rek ku si nekk dernier bu nga mujjee def combat bu neex la bu am solo la moo waral tey boole waa leen ñoom ñaar mu dox si diggante Kaw Gourdin ak Ronaldinho mu nekk combat espoir combat la bu nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku si ku si génn rek lamb na la séntu fu sëri sëri lamb ji nag yaakaar naa ne benn song lay jeexee parce que ñaari mbëru loxo lañ ño dajee Lamine. ñaari mbëru loxo ñoo dajee loolu la Siteu wax waaye maa ngi toog sëñ Mbacke drapeau Bijou Ngoné la mu représenté ko fi Bijou Ngoné mi ngi Istanbul ci loo waaye xanaa sant yàlla rek du nuy waa àdduna rawatina du nuy waa Sénégal lamin borom li TV ah internet bi nga xamante ni léegi duma ko sax tuddee site internet télévision bu mag a mag la. ndax foo toll ci àdduna lamb jot foo toll ci àdduna di ko seetaan ndax biisu ngoone mi ngi lay seetaan ba Istanbul yabal nu ci drapeau bi nga xamante ni jamaïcain di sunu frère di sunu xarit tëgg ko jagleel ko sama jigéen sama xarit Bijou ngoone waaye ma ànd jeeg soxna Aida Sali wéetuma ci benn yoon kon Lamine daal làmb ji day dafa ala daw me dinañ ci ñëwaat léegi incha allahu rabbi dinañ ci ñëwaat nga joxe dara boobu fii ci plateau bi diggante Kaw Gourdin Ronaldinho ba léegi dóor amagul song amagul ñaari mbëri ba léegi ñu ngi leewaatoo Siteu balancement de bras bi mu ngi bëgg a yàgg de mu ngi bëgg a yàgg ku si yëkkati ku te sàmmoo say tànk sa morom daw jël gis nga ko kaw cokkaas na ba daw jàpp dóor na dooraat ñu tàqali ko ñoom ñaar. daw na songu daw na songu moom Ronaldinho songu na songu na kaaw kaaw Ronaldinho kal ko mu bañ dóor uppercut dara amul ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Papa Gueye ñaari mbër yaa ngi leewaatoo da koy wër wala lan da koy wër mu bañ tegal 16 wër ndombo mu bañ Ronaldinho yëkkati nañ la ci kaw daanu na. wala lan dara amagul de bëre bëre bëre bëre war na ko ndombo quatre appui am na wala amul arbitre arrêté na arbitre arbitre arbitre arrêté na jox na victoire Kaw Gourdin ndax jël am na ah, yéeme na daala danañ ko xoolaal léegi incha allahu rabbi en tout cas daal sit bu njëkk ak sit bu mujj bi am na différence Ronaldinho nanguwul bañ na ne na tànk wala ba tey Lamine mais lu si waaye mënta xam daal Kaagour ne jox nañ ko victoire bi arbitre koo ko jox moo yore mbiibam moo leen suble moo leen boole moo leen tàqale Kaagour ne gannaaw ba ko arbitre yëkkatee loxoom ne ko yaa daan kii ca Ronaldinho lambam gën naa ubbeeku si xale espoir yi woo xamante ni.